gox dafa jot jàmbaar nga dox bul nekk yàmbar sa gox looy xool looy xool jugal jàmbaar sa gox bokk ci meeri saytu juuti yeeg patant yi jógal lànk yi bul toog dëggal tànk yi li nga mamal sa bopp jël ko yoral sa bopp yaay boroom jot na jëli ko ci politique yi ngir mu jur koom faaw ñu jox ko liggéeykat yi jeex na kenn dootu ko muñ dafa jot ñu nagu commune yi noppit naa di wax damay def wareef jëf jox sama town soog a laaj yeleef damay dem sama gox tànk tànk di dox naa tàng la jële set dund ak ndox saytu jëlee bi laisser aller dox ak sa gox jógal dox ak sa gox wareefu reefu sénégalais dox ak sa gox jógal dox ak sa gox di man di yow di kii dox ak sa gox jógal dox ak sa gox liggéey liggéey liggéey ak sa gox jógal dox ak sa gox yow donte aayuloo ñanguloo tànguloo jànguloo monte am nga xam nga sañ-sañ saytu coytu tund bi ci tund bi dox ak sa gox te yox dem taas yi ci saas yi démocratie lëj lëj sa gox yaa koy lëj mbët mu dox ci liñ ko jox bañ say sët dundee jox fay patante fay lempo tegale tànk mooy complot ñu lay sànq ci complot sa noppi moo leen complot tucco la ñu voté moomu loo ko dañ la denk ñoo ngi xool di noote jantu ndam kañ lay fenk yaa ko digga bor la est-ce que di ko matale alalu golo ca lex ba dootu ñu ko batale saytu jëlee bi laissé aller dox ak sa dox jógal dox ak sa dox waaye bu beeku Sénégalais ak sa gox jógal dox ak sa gox di man di yow di kii di kee dox ak sa gox jógal dox ak sa gox liggéey liggéey liggéey liggéey dox ak sa gox jógal dox ak sa gox saytu jëlee di laisser aller dox ak sa gox jógal dox ak sa gox wareeku bépp Sénégalais dox ak sa gox jógal dox ak sa gox di man di yow di kii di kee dox ak sa gox jógal dox ak sa gox liggéey liggéey dox ak sa gox jógal dox ak sa gox waaw waaw loolu mooy observatoire suñu baat yiñ leen moo waral am sañ-sañu saytu waa Y'en a marre ko yow dox ak sa gox waaw fu ngeen ànd jëm ba république des citoyens fa démocratie gën a am jëm lépp jóge ci askan wi dellu ci moom di ñu gëm njiit yu fonk askan wi dogu ci ay bëgg-bëggam mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ak ñun si rajo Rewmi FM mbegte bu yaatu nag lañ am ñi ki tey di dalal docteur Magatte nekk maire bu commune bu ngaay Mekhe ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm le fait que mu def déplacement bi jóge ca Ngaye ñëw fekk ñu fii tey ci li nga xam ne moom moo jëm ci studio bi nga xam ni moom moo jëm war a def émission gox bi monsieur le maire ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax ci ñu nga nangoo invitation bi. monsieur Dramé di sant euh, sa rédaction. Mm-hmm. di sant euh, seen groupe bi yëpp. Mm-hmm. waa mi FM. ci dalal bi ngeen ñu dalal ñu bég ci lool. Mm-hmm. di ñaan yàlla li ñu dugg. ñu dugg ci ak bisimilahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabil alamin am na solo euh, ci xel yëpp day daj buñ ne ngay mexe dañ ne ngaay mexe dëkk ba nga xam ni potentiel yu bari am na fa waaye dañ ci njëkkee leen rek mbirum artisanat cër bu am solo la fa am ci commune ba tey fan ngeen toll ci li nga xam ni moom moo jëm ci suqali gox bi ci wàllum artisanat waaw nga baal ma avant may dugg ci suqali gox bi ma leeral tuuti parce que ñu bari buñ déggee ngaay mexe mhm. léeg ñu dégg mexe mhm. léeg ñu dégg mekke ah, waaw ñu ne sama classe gi waaw waaw buñ ne ngaay neex na ñu naan mexee tax <laughs> pour wax leen ni mhm. yëpp benn dëkk la mais dëkk bi turam originel mooy ngaay ngaay mi ngi tekki ci mandeng xaaya donc mooy girafe et loolu euh, moo tax ñuy wax ngaay mhm. am na ñuy wax mexe bi nga xam ni dafa am dëkk bu ndaw bu nuy wax village bu tudd mexe foofu moo doon chef de canton ñu koy wax mexe village pour faire la différence mhm. foofu la chef de canton bi dëkkoon boo fa daan dem doo daan dem ngaay dañ la naan ngaay mexe donc ngaay ga ca wetu mexe donc mu mujj nekk ngaay mexe mhm. ba bi indépendance euh, colonisation bi ñëwee ñu institutionnaliser turu ngaay boobu def ko Mekke mooy Mexe. <laughs> donc nga xam ni léeg-léeg doo ci xam Mexe village la am <laughs> Mexe mais yëpp. <laughs> benn la te ñooñu diggante ñaari dëkk yooyu matul cinq kilomètres donc muy benn rek mais Mexe boobu village de Mexe boobu mi ngi ci commune u Meewaan et Ngaay Mexe benn commune la nekk une ancienne ville qui a été je crois la septième commune euh, officielle du Sénégal en 1911 donc ñoo ngi baptisé Ngaay Mexe commune en 1907 et commune de plein exercice en 1911. Mhm. dëkk boobu nag benn amul ay village ville la donc c'est une vieille ville. Mhm. et boo xam ni donc mu ngi à vingt kilomètres de l'océan Atlantique bu dégg nga bërki démb bi le ministre Mansour Faye di lancer les travaux du butimage de la route Mekhe Diogo Baba Garage Bambey ak euh, Mekhe euh, Thilmakha Touba Toul donc ñoo ngi nekk à vingt kilomètres de l'océan Atlantique donc à, proche du port de pêche de Fass Boy de Diogo donc les terres les plus fertiles du Sénégal ci la ñu adossé wu mm-hmm. mais ñoom ouverture donc nekk au milieu de l'axe Dakar Saint-Louis nous sommes à kilomètres Dakar à cent trente huit kilomètres de Saint-Louis sur la RN2 mm-hmm. et ensuite ñu nekk à kilomètres de la ville de Tivaouane et nous avons quatre chefs-lieux de département qui sont à trente cinq kilomètres de Mekké donc Ndiassane nekk à côté à cinq kilomètres Tivaouane vingt deux et Touba Mbacké cent dix kilomètres donc da ngay jógee Mekké jaar euh, Pekes Cilmaxa dem Daaru Marnaan Daaru Musti Touba ou nga jaar tëli bi doon Butimé nga jaar Baba Garage boo ñëwee baaba Garage bu la neexee nga jàdd Kër Sambakan dem Touba Toul génn ci euh, national bi ou nga continuer Bambey Fatick nga dem Kaolack donc vous voyez que dëkk la boo xam ni. dafa am une position géostratégique unique. maintenant question bi nga posé. parce que loolu dafa am solo ci leer leeral. nit ñi comprendre ko parce que bu ñuy wax Ngaye Mekhe ñuy déglu xam. Mhm. li ñuy wax lan la. Léopold sax xam na tey Ngaye Mekhe. waaw Léopold mi ngi jàng tuuti. <laughs> léegi lu tax Ngaye nekk capitalu artisanat lu tax artisanat bi dox Ngaye. parce que loolu tam question la boo xam nit ñi dañ koy laaj. xam nga Sénégal royaume du Kayor ci royaume yi quatre quinze cent quarante cinq. le royaume du Kayor nekkoon état vassal du Jolof la am indépendance Kayor conquérir na ba Jandeer fii ci Cap-Vert Kayor a ko moomoon le Kayor régnait jusqu'à la presqu'île du Cap-Vert dem donc c'était un vaste royaume mais bi nga xamee ne à la décadence bi royaume bi daanoo nga xam ni en 1887 de 86 donc Lat Joor nañ ko bu Lat Joor bi ñu koy rey sax nekkatul woon Damel moo booba Damel jeex na ci Kayoor. Mhm. donc ñu jël Kayoor def ko surtout tutelle mu am président. et en ce moment comme Ngaye bi royaume du Kayoor di dox déjà moo nekkoon le point focal de l' économie important il faut que analyse yu ñu def ñu def toujours par rapport à l' économie. Mhm. parce que économie mooy dundal nit ñi ci la nit ñi di dox. donc buur yi dañ naan am ay tëgg yu leen di defal armes yi defar matériel agricole am ay wuude yu leen defar dàll yi bot yi. am ay ñu leen di ñawal pour seen manteau yi et cetera donc léegi bi loolu tasee ñooñu il faut ñu dem foo xam ni fa la ñuy mën a dunde donc dañuy dem ci point bi nga xam ni mooy point bi gën a am dynamisme économique te Ngaye Mékhé par sa position géostratégique nekkoon la capitale économique du royaume du Kayor moo nekkoon point bi nga xam fa lañ jëm donc tëgg yéeg wuude yéeg géwal yéeg troubadour yëpp dem ngay et en ce moment il a commencé à se créer une comme ni ñu koy waxee que léegi boo fa demee tey artisanat bi du wuute rek dañuy wax dallu ngaay mais artisanat bi mooy ànd yi mooy mooy dàll yi ñi daan defar bot yi bot yi roi yi mooy sér yi ñu daan defar manteau yi même léttkat yi ak ñu daan defar euh, euh, machine agricole yi tey machine boo yóbbu ngaay boo demee ñu defar ko les menuisiers métalliques moo tax ngaay nekk donc un pôle artisanal léegi nag foofu loolu mooy potentiel dëkk bi. Mhm. potentiel boobu nag ñi ci gën a xarañ muy der yi nga xam ni moo moo ëpp capacité de surveillance moo tax ba dem ba am tur donc xam nga moom au am na tur nee ñu dallu ngaay. donc dallu ngaay boobu tey moo law ba nga xam ni ngaay nekk nag foo xam ni donc xarañ na ci der waaye xarañ na ci sër xarañ na ci pañe xarañ na ci eh, yëpp. Mhm. donc aujourd'hui décembre 2014 bi fa président Macky Sall ñëwee à de la journée nationale de l'artisanat mhm. mu mmh. consacré mu consacré la ville de Mékhé capitale nationale de l'artisanat dëkk boobu mooy dëkk bi nga xam ni maay maire bi tey yéen a ngi koy wuyoo ba tey ndax la nga xam ni yaa ngi ko wax 2014 ba mu fa ñëwee tey est-ce que am na coppite bi nga xam ni am na ci foofu nga ngaay googu mais évidemment hmm. parce que bi président ñëwee xam nga euh, Sénégal dafa am atu yu bari xam nga coow li bari na wax ji bari na mais ku xool Sénégal xam ni Sénégal am na ay atu mais am na foo dem ci àddina bi gis ay sénégalais yu xarañ sénégalais bëgg na liggéey et Sénégal am na programme parce que li gën a jafe mooy nga am programme de développement PSE bi mi ngi fi tey dégg nga PAP 2A bi gis nga ni ñuy accélérer croissance bi mais gis nga infrastructure yi aussi donc aujourd'hui le président waxoon nga xam da ko lancé par rapport au PSE pour que ñu mën a créer ay emploi pour que ñu mën a renforcer le tissu économique pour que ñu mën a améliorer les conditions de vie des sénégalais pour que ñu mën a yokk koom gi pour que ñu mën a booster croissance bi pour que Sénégal nekk dëkk réew mu émergent donc bi mu ñëwee li ñu ci jàpp mooy il faut avoir maintenant un plan de développement communal ñu am ko ou plan de développement communal donc il faut de la planification mais planification aussi il faut nga am ay données ñu def par exemple des enquêtes def euh, la monographie de l'artisanat mhm. def ay enquêtes pour xam ñun li nu yor lan la ak nu nu ko mën a valoriser ba répondre à la demande du chef de l'État ñu xool ni ci artisanat bi bari na mais ngay mënta nekk temple artisanat secteur yëpp ñu jël secteur yi nga xam ni ci la ñu gën a xarañ dal dallu ngaay mhm. dallu ngaay par exemple mooy numéro un waaw seru ngaay numéro deux xam ngeen xam ngeen ko valoriser ko pañe ngaay mhm. ñu valoriser ko donc loolu ñett yooyu seru ngaay dallu ngaay pañe ngaay ñu ne léegi il faudrait considérer ci xam-xam léegi nag dugg la chaine des valeurs mooy li nga xam ne lii chaine bi nga xam ni boo jëlee dàll ñu jiital dàll mhm. ni lépp loo xam dafa jëm ci der ba dem ci dàll bi parce que der yemu rek ci dàll der am na yëre am na ay saak am na yooyu yëpp ñu ne léegi nañ leen considérer la chaine des valeurs mooy maanaam der yi maanaam der yi xam nga maanaam der yi mooy mën a am jur gi mhm. mën a am gàncax gi jur gi di lekk mën a mën a mën a fees mën a dem ba nga xam ni di nga am der bi nga xam ni moom ngay liggéey ba génne produit fini bi produit boobu sax ñoo ngi ci am yeneen xalaat pour que dallu ngaay bi émigré à l'international ba nekk made in Sénégal moo nekkoon ponk bi nga xam ne bëggoon naa fa ñëw sax la fekk nga wax yett yooyu yëpp dàll ngaay sëru ngaay beeg yëpp est-ce que tey yéen a ngi xalaat ngir génne ko mu mun a jural itam euh, commune bi tur bi itam mën a jaar foofu gën a euh, law waaw loolu ñoo ngi koy def c'est-à-dire que xam nga liggéey boo gis euh, dafa am commencement mhm. njàng moo gis daa am alif donc euh, aujourd'hui bi ñu ñëwee gis nañ ni d'abord der yi qualité bi baaxul parce que der yi waa ngaay di liggéey fi mu ne yi ci ëpp mooy li wax ay chute yu jóge Italie ba Portugal ba ci Maroc et cetera boo gisee importation dàll yi dàll yu bari mi ngi jógee bitim réew. Mhm. ensuite les sénégalais amagul réflexe di consommer local. bien xam nga léegi kenn mënta imposer nit ni li ngay consommer parce que y a la la la la la libre concurrence. Mhm. le marché sont ouverts. Ah. donc li ñuy def mooy der yi ñëw da war du der yu baax pour daal toujours. léeg-léeg sax xale yi jël ay der yoo xam ne chute yoo xam ne ay der yi meuble la def ko ay daal donc il faudrait d' abord que réew mi assurer artisans yi leen der dina am. en quantité suffisante et qualité ça c'est la première chose mais li ci gën a yéeme mooy réew mi man bi ma ñibbisee ba léegi nekk maire 2014 maa ngi leen naan mais Sénégal rek moo fi dese réew moo xam ni dañuy jël peau yi mooy der bi nga xam ni dafay jóge ci abattoir bi dugal ko ci ay woto dem jaayi ko Nigéria Côte d'Ivoire Ghana et cetera parce que foofa der yooyu nga xam moom lay wax peau bu génnee yooyu dañ koy lekk ci réew yooyu. Mhm. bon dañ koy lekk donc réew moomu bu fekkente ni boucher bi. rey na nagam ñu fay ko dix mille francs ci der boobu parce que der boobu soos bi muy defar soos bi benn plat bi rek dina jar trois mille francs boo demee Côte d'Ivoire sama euh, frères yi ak sœurs yi parce que yàgg ak ñoom ñoo ngi koy tuddee plo soosu soos soos gluante bu ñuy lekk ñoom avec le fufu et autres et dans d'autres pays encore Nigéria et autres donc ñoom bu ñu ko mënee jaay dix mille francs nga jaay plat bi trois ñoom dañ ciy génn mais su fekkente ni femme tanneuse bi da koy jënd ba tannerie jënd ko ay trois mille cinq cent la koy jëndee donc il faut que sunu mbokki boucher yi. Mhm. sunu mbokki boucher yi ñi nekk ak éleveurs yi comprendre ni dafa am ay ay ay ay acceptation dafa am ay sacrifice dafa am yoo xam ni nit def koy nangu waxuñu ko mu perte mais réew pour mu jëm kanam il faut nga am loo bàyyi. Mhm. il faut nga am loo nangu il faut nga am loo yombal pour que ëllëg mu gën a am valeur parce que der boobu di jar dix mille su fekkee bàyyi nañ ko ci réew mi ba nu liggéey ko ba nu toll fi nu war a toll dina mën a dem ba jari ay mille francs dans le temps. Mhm. loolu la première chose la deuxième. mooy. Euh, jur gi il lekk gi léeg-léeg du baax il faut ñu am ay ay pâturage am ay fourrage boo demee Brésil dafa am ay espèces yoo xam ne dañ koy def spécialement pour jur gi di ko lekk mhm. te fii deru Sénégal ñëpp ko bëgg deru suñu jur gi ndax dafa baax waaye nag mënoon na gën a baax mhm. fees gi aussi ku nekk nu nekk ngay feese ensuite ay fi nuy traité der yi amul yu bari naar yi rek ñoo fi traité lu ñuy wax les femmes tanneuses bata amoon na fii am na ñuy def wet blue mhm. boo demee géejawaay boo demee feneen mais li ñu wax et yooyu aussi euh, euh, dina dina ci ñëw parce que li ñu war a def mooy fu mel ni ngaay ñun mhm. consolider nañu par exemple suñu tannerie végétale mooy tannerie bi naar naari yor ñu consolider ko defaraatal leen ko pour que ñu mën a am ay der mais pour ñu am der sax problème la parce que pour am financement mhm. pour jëndi der les gens yi nga xam ni ñooy jënd der yi di ko yóbbu bitim réew di ko jaay ñoom dañuy jël dañuy ñëw jël par exemple euh, cinq millions jox ko benn boucher ni ko jëndal ma der yi mu ñëw jox femme yi femme yi bu ñu demee ñoom ak seen cent mille francs ou trente mille francs mënu ñoom der parce que les plus forts achètent parce que l'État donc doit mieux restructurer le secteur mmh. pour que der yi dem à à à pour que der yi dem ci production pour que der yi dem ci li nga xam ni mooy indil réew mi koom parce que ci la nit ñi di liggéey am ci xaalis mu mën a booster croissance liggéey am et cetera mais. Mhm. bu nu ko defee. nga xam ne donc am na problème mu tannerie végétale mooy tannerie yi utiliser nepp nepp et cetera mu loolu lañ war a gën a consolider ci dëkk bi parce que amul korom mais ñi nga xam ne aussi der yi fi jot a rëcc tannerie yu mag yi j'ai rien contre eux. parce que c'est de l'industrie mhm. c'est c'est le marché c'est le libéralisme les marchés sont mhm. la concurrence mais ñoom su ñu jëlee tannerie au chrome parce que tannerie bu mag bu mën a defar dër dëgg-dëgg mooy tannerie au chrome donc day produit chimique mais produit yooyu aussi am naa ci ay jàngat c' est pas que dama nekk nga ay est que mhm. dama am beneen jàngat parce que aussi. lan mooy sa jàngat avant mhm. avant may nekk maire je suis un expert quand même aussi xam li ma liy protéger suñuy côte ak liy protéger suñuy suñuy ndox mais chrome boobu est ce que ñoo ngi saytu ba xam dañ koy waat ci géej gi am déet est ce que fan nañ koy tuur. est-ce que am na ay usines yoo xam ne day traité kuréem boobu loolu aussi le ministère de l'environnement ay direct yooyu war nañ ci jógaat xool ci c'est comme boo demee à à à Mboro comparaison n'est pas mais mhm. acide yi ñuy tuur ci booru géej gi c'est pas normal également donc moi je me souviens quand il y avait une pollution du genre en Tunisie le président Ben Ali ci cimenterie yi dafa xëy rek ni leen vous mettez tous en en norme ou on ferme les les les cimenteries ici au Sénégal que le président Macky Sall le seen bopp. ñoo njëkk a critiquer ñoo njëkk a kaas. et alors que y a des normes qui sont des normes internationales qui sont dédiées à la protection des. personnes dañ ko war a respecter. dañ a respecter donc su ma jógee maa ngi ci der yi pareegu ma de. nga dem ci fees yooyu ñu jël der yi léegi. léegi il faut que nit ñi mën a xam que der yi état bi dafa war a interdire ñu exporter peau yooyu. dina yombam. mais mais décision la un état. l'État a une mission régalienne. Un État doit être fort. Un État doit être fort. Et c'est à l'État de décider. Mais au Sénégal, c'est les Sénégalais qui empêchent à l'État parfois de tourner en rond. Parce que Sénégalais, il y a une forte protection sociale. Il y a une forte protection des intérêts des, des, des syndicats. J'ai contre les syndicats. Mmh, Mais un État, un État, quand tout le monde lui demande du développement et que ñëpp di ko laaj mu liggéey dañ ko war a may ay moyens pour mu liggéey tey il faut que éleveurs yi d'accord bu yi d' accord que ñu ni mais Mali interdire na ko Burkina interdire na ko Maroc interdire na ko Maroc mi nga xam ne mooy ëpp lu mu ñuy jaay ay dàll moom deram du génn benn daggitu der dix centimètres carrés bu ñu la jàppee nga koy génne ci aéroport ba feneen tu es condamné da ngay tëddi mais donc ñun tam danoo war a xool lii dox ci àddina ñu koy doxale loolu mooy suñu première demande la deuxième mhm. il faut que ñu passer aussi à réduire pénibilité mooy liggéey bu métti bi jigéen ñi liggéey ci tannerie végétale il y au moins une vingtaine dans le pays euh, au Fouta à Diourbel à Mékhé à Guédiawaye et cetera donc loolu la ñu wax nañu jëndal jigéen ñi ay foulon foulon bi mooy man na moom nga xam ni moo yëngal der bi mhm. parce que ñoom seeni i doole lañ koy defee te ay jigéen rek koy def mhm. seen i doole góor ñi amuñu benn njariñ ci loolu <laughs> ci te artisanat moo ëpp lu muy joxe croissance mhm. donc jigéen ñi si seen parité boobu danoo war a wax góor ñi <laughs> ñuy ñëw parité politique parité politique mais parité économique eh, waaw ñu ñëw di <laughs> di jàmb ci der yi foofu donc loolu foulon yi war nañ ko am war na am ay décharneuse doo xam day dindi yàpp wi taq ci der yi war na am ay tendeur mais loolu loolu wax ni ay machine la yoo xam ni boo ko xoolee bu ñu jëlee à peu près deux cent cinquante pour chaque tannerie végétale dee ñu wàññi coono jigéen ñi bu ñu paree nag ñu dem ci xool nan lañu mën a structurer ci réew mi ba def fi ay tannerie moderne au chrome mais nag boo xam ni dañuy réduire chrome bi donc ñun ngaay ñoo ngi renforcer jigéen ñi d'abord ñoo ngi renforcer qualité production dàll yi parce que da nga ma laaj ñi ma booba ba booba ba léegi renforcer qualité donc contrôle qualité on a enregistré le label Dalu Ngaay à l'ASPIT du ku jóg rek comme ni chinois yi di def daan dem Chine defar seen dal def ci Dalu Ngaay indi jaay ko Sénégal ba biir Ngaay. ñu fay jaay Dalu Ngaay. Euh, gis ngeen ni ñoom ñu ngi ñëw ba di leen concurrencer seen biir. suñu biir dëkk. ma dem ma dem dëkk bu nekk ca wetu kër ma jabel fële ca kaw fekk fa ay conteneur waa ji ni dàll yi Chine la jóge ñu def ci Dalu Ngaay ñu ni ñoom dañuy jaay ci Ngaay bon nga dem Medina. moom ay unité yuy defar dallu ngaay dëkkuñu ngaay et li ñuy defar c'est pas dallu ngaay dallu ngaay dëgg-dëgg comme yi ma sol nii mhm. c'est la qualité ay bu la ko defaree deru nag mën nga ko sol vingt ans da ngay sol rek ba sànni te da nga ciy jàpp danga ciy xuus ci ndox mi te du yàqu donc yi ñuy jënd ci booru tëli bi mhm. ak euh, yooyu ay pour dépense la ay xale koy def ñoo xam léeg-léeg. <laughs> mais du du du du dàllu ngaay waaw ngaay la parce que léeg-léeg am na ñun fay defaree mais ñuy jaay yuy Medina tam ay doomi ngaay ñoo nga fa di liggéey. yow war na leen a ràññee bokkut ak ñiy dem jëli seen dàll yeneen réewu feneen ou chinois yi defar ko ci ay atelier biir Medina jox leen. donc loolu c'est un problème ñoo ngi contrôler qualité bi. contrôler production bi. contrôler également gën a former artisans yi gën leen a tàngat pour que ñu gën a mën a dëgër. gën a mën a maîtriser seen liggéey. donc loolu su ko defee léegi nga xool nag léegi ci biir ngaay ngaay dina produire on a à peu près deux cent cinquante ñaari téeméer ak juróom fukki ateliers yoo xam ne ñoo ngaay atelier bu nekk. lu mat ñeenti nit nga fay liggéey ba juróom-ñetti nit. mais nit ku nekk soo amee der bu doy sëkk-sëkk mën ngaa def fukki dàll bis bu nekk soo ko defee donc mën ngaa génne à peu près. Mhm. bis bu nekk ci ngaay juróomi junni peeru dàll. te dàll bi mi ngi jar bi jaay ci mbedd mi bu bon bi ñetti téeméer ba ñeenti téeméer xam nga ni boo demee jënd dàllu der ñu naan la deru nag la ñetti téeméer kooku du dàll <laughs> bon dàll mi ngi commencé ci junni junneeg ñetti téeméer jëm kaw am na dàll yu jar ay fukki junni mhm. léegi boo xoolee moyenne bi nga xool juróomi junni paire paire par jour paire bu ne nga jaayee ko junni koppar la de ëpp na fukki milliards mais loolu nag dafa laaj organisation pour que mu aussi circuit mhm. mu am marketing territoriale design bi aussi ñu liggéey ci parce que gars yi léeg ñu xool internet rek gis benn dall bu rafet recopier ko il faut mu ñoo ngi defar gouvernement mi ngi defar benn centre de formation au métier pose cuir dina am design conception design pour que ñu mën a compétir pourquoi pas demain ñoo am benn dall boo xam ni label ñoom même bu sport mhm. boo xam ni ñoom Sadio Mané moom la ñu sol boo xam ni ce sera made in Sénégal dàllu sport ñu c'est possible loolu mhm. bañ mhm. ñuy defar ay bali football ak yëpp et bu boobaa mën na ni dans trois ans on lance le le, la chaussure de sport euh, made in Sénégal par exemple. Hmm. donc li ñu war a def mooy il faut que état bi continuer mi ngi def centre de formation def na fa un centre de d'ex un site. Hmm. d'exposition et de commercialisation artisanale. am na la maison de l'outil le centre d'incubation euh, président may na nañu ay machines on est en train de construire l'usine italiens yi de Bergamo may na nañu usine donc affaire bi. mi ngi dox. Ah. atelier yaa nga fa. Mhm. ñoo ngi former gars yi. Mhm. qualité bi mi ngi amélioré. et la dernière fois j'ai reçu le président fondateur de Palais Diop et les grandes marques viennent à Mekke pour xool nan la ñu mën a sous-traiter ak ñun. Mhm. mais dafa am un problème. lan mooy problème bi. le problème mooy euh, il faut que euh, état bi gën ñoo gën ñoo dooleel. gën ñoo dooleel mooy nan ci ban fànn. ñu doon der yi ñuy exporter d'abord. ensuite ñu xool nan la ñu mën a conserver der yi fi nekk am na benn bu ñu lancé semaine bay passé ak ministre de l'artisanat bu ñu tuddee sàmm suñu der dañoo bëgg au moins ñu tenter xool ci biir ngaay bu tabaski jotee la fay nekk ci der nu ñuy fexe ba conserver der yooyu. bëgg ngeen ko expérimenter. tabaski bi expérimenter tabaski bi waaw. ñoo ngi dañ def formation bi semaine prochaine 4000 der ou 5000 der ñu xool nan lañ koy téye ci biir dëkk bi xam nga loolu dina yombal trop liggéeyu suñu jigéen ñi. <laughs> léegi bu doxee ñu xool ko ci yeneen dëkk Touba Mbacké maggal gi li muy génne ci der rek mooy suñu projet usine tannerie moderne au li ñu projet de produire ko ñun ci der ci at mi moom la Touba di def ci bi dix jours donc loolu itam il faut ñu xool nu ñuy organiser. Mhm. jël der yi mais conserver ko parce que jël der yomb na. der yu bari dakaar da gis ñu koy sànni. mën na am sax mën nañ xaar ab lëkkaloo ci seen diggante yéen mairie ak mairie mu tuuba waaw waaw ñoo ngi koy jéem a dox. Mhm. ñoo ngi koy dox d'ailleurs da ngay gis Dakar ñuy sànni der yi ci canaux yi nga dem ñu bari dañ koy gas suul. mais der yooyu yëpp nag lu nu amal njariñ la e fii nu jëm nii fi mu ne nag mhm. ah, mooy répondre à la commande publique ñoo ngi commencé aussi di jëfalante ak armée bi defar nañ leen ay dàll kontaan nañ ci et aujourd'hui le Ngaye Mékhé peut chausser le Sénégal mhm. léegi nag li nu bëgg mooy mu ànd ak changement de mentalité que Sénégal yi approprié wu consommer local consommer local mais approprié aussi Euh, le le développement de l'artisanat qui migre maintenant vers l'industrie naa ci ñëw. Mmh. sunu projet yu mag yi nu boobaa bu tabaski jotee tey. Mhm. ku nekk ni man daal ren. Mhm. maa ngi jàpp rek ni man dalu ngaay laay jënd. waaw ñu waxtaan ci projet yu mag yi parce que bu naree tey rek dañ yam ci artisanat am na yeneen ponk yi nga xam ni faaw ñu daal di koy waxtaanee projet yu mag yi yan la. bon projet yu mag yi d' abord mooy euh, ñu créer benn cluster industriel au niveau de ngay Mékhé mooy Ngaye Mékhé parce que pare gu ma de da nga ma laaj xam nga. Mhm. xam nga ku nekk li nga nàmp nga mën a toqami ko <laughs> meeru ngaay nga toogal <laughs> di ko wax ci artisanat waaw waaw donc xam nga il faut mu wax parce que ñi may déglu mooy tax parce que sénégalais sénégal dafa war a changer sénégalais war a changer ngaay changé ñu changé ñun ñëpp vers l' émergence et nan daan doxale fokk ñu bacci lu bari doxale doxalin bu bees mais nit ñi nangu ko li ñu leen war a imposé ñu imposer leen ko li nu war a naxanteeg ñoom ñu naxanteeg ñoom li ñu war a maye ñu maye ko mais aujourd'hui nous sommes en position de force pour imposer le label Ngaye à travers un label Made Sénégal à l'international et un label Ngaye à travers tout le territoire national donc loolu li ñu ci yokk mooy cluster industriel mooy ci dàll yi parce que pare gu ma ci dàll yi ak ak dàll yi mooy dañu defar dàll dañu defar selu fas dañu defar pañe di ko ràbb dañu defar yeneen ay yére boo demee Éthiopie tey euh, ah, ah, ñoom amude bi ñu commencé di defar ay dugg ci der bi yàggul ñoom bari nañu deru bëy mais bi ñu commencé am industrie yàggul ñoo ngi defar ay ay sac de voyage di defar ay veste et cetera ñun d'abord rivet rivet rivet yu ñuy defaree daal daal boo gis li ciy weñ googu ah. ak rivet yi mhm. dañ koy importer pont sax Sénégal da koy importer donc loolu c'est inadmissible <laughs> au vingt-et-unième siècle mhm. ensuite col kol col col bii colee dàll bi man boo amee chaussure ferme bu jóge Europe boo ñëwee ngaay baa nga dugg ci àll bi fii ci joor gi dox ci suuf si tàng si mu décollé parce que col bu weex la mais ñun amuñu usine kol suñu col ngaa yi dañoo bëgg a defar donc ci suñu cluster industriel boobu usine buy defar ay rivet buy defar ay boucle boucle yi di nga jënd daal der boo xam ne deru nag la mhm. bu doon deru giléem sax boo ko jëndee boo tegee ceinture gi baa nga jël dàll bi boo defee nii rek boucle bi dam parce que boucle bi qualité bi baaxul qualité Chine lay jóge ça ne veut pas dire que amul lu baax mhm. Chine da ngay fay ñu jaay la li tolloog li nga fay mais sunu artisans yi bu ñu demee du ñu mën a jënd la gën a baax. Mhm. en laiton en bronze en argent en or xam nga du ñu ko jënd. déedéet nga ñuy jënd benn fer rek mu rafet briller. Mhm. nga def ko mu damm donc ñun bëgg na usine buy defar lait buy defar ay boucle ak accessoire mhm. bëgg nañu ngaay usine buy defar ay col. bëgg nañu ngaay tannerie euh, euh, après la tannerie végétale tannerie au chrome. bëgg nañu école de design et de conception dañu ko def ci centre bi. et maintenant ñu tàngal nit ñi. Mhm. ci euh, marketing territorial et exportation et développement du marché intérieur d' abord. Mhm. marché bi biir Sénégal et ensuite ñu dem à l' am na solo en tout cas dañuy. Euh, mais le plus grand projet. waaw pare gu ma laaj waaw ñu laaj ba ma tonte <laughs> ba may laaj foog ma tonte parce que a un très grand projet. Mhm. boo xam ni dafa cadré ak la territorialisation des politiques publiques c' la zone économique spéciale du Cayor. et loolu il faut ñu déglu moo bu baax. Mhm. c'est une zone économique spéciale unique en son genre unique en son genre gisaguñu ko Sénégal gisaguñu ko Afrique ce sera une zone désagrégée léegi nag que l'on l'appelle zone économique spéciale ou zone économique. tur bi du ci amul du ci solo. ñun li ñu intéressé mooy. Mhm. nu gouvernement bi jàppale ba woon ñu mu fonctionner ni ñu ko bëggee mooy lan. Mhm. alors à partir de Taïba Ndiaye ba Ngagne Diouf pour ku xam kaa yor nag parce que am na Sénégal yu bari yoo am sax responsabilité xamuñu Sénégal bu baax <laughs> loolu tam uh-huh. euh, c'est dommage quoi parce que nit ñi il faut ñuy xool seen carte réew il faut ñuy dugg ci biir réew mi di doxantu il faut faire du tourisme dans le pays ak di doxantu ci dëkk bi ak di doxantu di dem ci seen dëkk yi di fa dellu parce que loolu dafa am importance uh-huh. boo jógee Taïba Ndiaye Taïba Ndiaye mi ngi ci yoonu Mboro bi booru Daaru Xuddoos yeeg nga ñëw ba Tivaouane wàcc uti Pire Ngaay nga nga xëtt uti Pekes boo demee ba Pekes nga wuti wuti Nganjuuf. <laughs> Euh, Mbayeen alors Cilmaxa Ñaaxeen. Mhm. donc euh, nga xub xub coupé nii Mérina daqaar uti Kuul. Mhm. et ci kaw ñu nekk diggante frontière Bawol ak Kajoor Kër Samba Kane ak Baba Garage. alors on a une zone économique spéciale zone boobu le cluster industriel lépp lu nekk cuir ngaay lay nekk léegi diggante Taïba Ndiaye Meewaan ak Pire ñoom ñooy produir ñam bi. danoo bëgg a def foofu usine boo xam ni désagrégé mooy boo mhm. xam ne nekkul ci benn place usine buy defar amidon ak acceke nga avancé dugg Mérina Dakhar mhm. UEMOA ma nga fay financé transformation euh, euh, fruits et légumes donc ñu def foofu tout ce qui est agro-industrie à Mérina Dakhar boo demee Ngandiouf découvrir nañ fa phosphate ñu def fa usine buy defar engrais nga yéeg uti mbayeen uti ñaaxeen uti cilmaxa ñu def fa minoterie il faut ñu am suñu minoterie on parle de cultiver le blé cultiver le blé c'est pas compliqué mais il faut que la législation facilite pour nit ñi mën a béy ci bor ndox mi blé mhm. nga génn outil donc kuul euh, euh, mhm. boo demee kuul ñu def fa agro agropole mhm. mu jàpp ci prodagu kër sàmbakat et diggante Baba Garage mairie de kuul ak ngaay ñu def fa un port ñun raay bi ñëw na ba ngaay sunu gaar mi ngi dox moo jëm ba GCO ci géej gi ci minu zircon bi ñu def déviation chemin de fer huit kilomètres mu jóge ngaay dem ba ci porsek huit kilomètres c'est huit millions de dollars ñu def ko fa ba def fa service. Mhm. bu boobaa kuy dépoté baa ngay baa ngay jël ses conteneurs baa ngay wàcce boo jógee Touba Mbacké mhm. foofu nga yem boo jógee Kaolack bu la neexee avant nga egg Port Dakar nga egg foofu mhm. boo jógee Maroc um, ak Mauritanie nga ñëw foofu parce que tëli ñoo ngi defar tëli yi tëli yi dafa war am utilité bu boobaa ñu def fa nag un boo xam ni am na data center yoo am jam ñaajo mais bële <laughs> bële bii pour stocker la mhm. bële pour continuité des affaires ñun loolu lañu bëgg koo xam ni am nga crash baa nga am problème ci sa usine boo nekkee même à travers le monde États-Unis Chine boo ñëwee foofu ci ngaay en toute sécurité mhm. nga nekk ci espace bi nga liggéey expérience boobu mhm. dañ ko vivre avec la Banque africaine de développement bi mu amee crise Côte d'Ivoire ñuy dem Tunis di déménager Paris lañ demoon pour le business continuity loolu moo ñu inspiré ne plan boobu. Mhm. mën nañ koo def foofu. te lu war a mën a am la. day am moom waxuma day day mën a am. ñun jàpp nañ ci ni. Mhm. day am parce que xaalis boobu. waaw ay xaalis yoo xam ni. ñan ñoo ko war a financé. mais il faut le faire en PPP. Mhm. en public en privé et en partenariat donc. c'est-à-dire état bi mën na ci dugal loxoom. pour avoir son leadership. mais li yëpp ci xaalis bi dañ koy uti sur l marchés ak sur les que am na ñu pare pour accompagner ñu. ci yi ci port sec bi li bëgg ñun. état bi mu yombal kayit yi assister nu facilité nu la mise en place et le Sénégal le développement du Sénégal passera nécessairement par l'industrialisation de ce pays-là. docteur Magatte Magatte moom mooy maire bu ngay mexe moom la ñu dalal tey ci émission gox bi waaye nag bu ñu nee Ngaye itam waratu mun a nekk artisanat rek euh, monsieur le maire gis nañ ne ngay waxu artisana waaye itam santé ak li nga xam ne moo jëm ci wàllum infrastructure ci dëkk ba la bokk ci tënk rek xëy na jël nañ waxtu bu bari ci artisanat bi waaye ci wàllum santé pàcc am na ci ay jéego yi nga xam ne tey def nañ ko fa. waaw euh, aujourd'hui mhm. Ngaye am na euh, ñetti poste de santé plus sapeur pompier ba pare am benn centre de santé mooy centre district bi ci gox bi ko wër ay neuf commune à peu près wër ko mhm. mais sunu hôpital man am naa assurance NR internationale boo xam ni fu ma neex dem fajo et dans les cliniques Dakar du ma fay mais man Ngaye laay fajo kon doo génn ngaay waaw ça veut dire que sama laboratoire baax na <laughs> am naa ay médecins yu baax mhm. sama hôpital set na am naa conformité bon léegi nan ñu renforcer ci lan ci lan li ñu bëgg mhm. waaw parce que état bi aussi léeg-léeg ñun dañuy gën a gaaw état bi baa ñu ëpp euh, gis-gis état baa état bi ay moyens du ay moyens aujourd'hui y a Gaspard Camara y a le centre de santé Mamadou Diop mhm. mais ñun nan ñu defar benn centre modulaire multimodulaire boo xam ni day ñu am or euh, temps yi jo yónnee nañ ñu ay chirurgien on a deux blocs chirurgicaux yoo xam ni presque deux ans ngi nii tourné wul ko gâchis la dans ce pays. Hmm? aujourd'hui yónnee nañ ñu un un chirurgien médecin chirurgien boo xam dina mën a def les trucs euh, obstétricales. Euh, hmm. et cetera dina yónnee nañ ñu anesthésiste mais nan ñu jox gynécologue jox ñu ORL jox ñu cardiologue jox ñu ophtalmologue. Hmm. ñu am un centre multimodulaire di def ay rajo di di bañ a déplacé wu parce que déplacement yi ambulance dañu def ay accident rek. ambulance dañu bari. donc xale yi ñoo ngi jàng ñoo ngi chômé quand tu vois un docteur di te dit mais nan def comme la Côte d'Ivoire suñu amul ñu doy ñu wax ni képp ku nekk ci Afrique bëgg liggéey boo ñëwee ñu am embauché la si tes diplômes le prouvent donc je pense que ñun dañoo bëgg ñu defar centre modèle am na nag un projet d'hôpital de niveau deux mhm. boo xam ni privé yi ñun ñoo ko bëgg a defar avec des privés avec la diaspora mécoise ci biir ngaay mhm. kon foofu année bi day ñu yokkaat poste de santé yi ci quartier dañuy defaat benn bu bees grâce au PACASET mhm. lébu ouest dañu ko defar ren donc aujourd'hui en terme de santé population yi wër ngaay nag ñëpp ngaay la ñuy fajoo communes yi wër ngaay yëpp ngaay la ñuy fajoo ngaay la ñuy jànge donc il faut ñu yokk mhm. parce que ñun waa ngaay rek dina mel ni Suisse mais population yi ñu wër yëpp fa la ñuy fajoo fa la ñuy jànge donc il faut que état bi mën a mesurer à sa juste valeur ce qui se passe dans ces communes-là et je suis sûr qu'il des mi des des centaines de communes qui sont mhm. comme gars yi bari nañ ci bari ñu defar leen donc mhm. loolu ñoo ngi ci infrastructure yi mhm. mais moi j'ai été réélu j'ai gagné vingt sept sur vingt sept j'ai été plébiscité par les Mécois bureau yëpp maa leen gagné bureau ñi ma doon concurrencé ñëpp fan nu wootee maa leen fa gagné ci seen bureau ñoom seen bopp donc centre yëpp maa ko gagné pourquoi parce que defar na dëkk bi les infrastructures changent on a fait un stade de. l'école yi l'école yi. les les, les écoles on a toutes les écoles on les a clôturées. on a mhm. fait des salles de classe. on est en train de mettre une euh, médiathèque avec un musée numérique équipé grâce à la fondation Sonatel. Et, tout je ne dis pas que tout est bien. Mm -hmm. mais nous avons beaucoup fait mhm. le stade. avec ses projecteurs ses gradins neufs on a tout fait l'abattoir qui est moderne et les écoles tout est clôturé les salles de classe et je crois que les enseignants m'entendent les routes on a refait quelques kilomètres sur les neuf qui existaient depuis 1960. On a fait au moins un kilomètre 500 et on attend d'en faire davantage avec ces routes qui vont nous traverser mmh. et avec le FERA qui nous a et etc. Donc les sapeurs-pompiers sont là. Mmh. On a le SECA et, et, et il y a il y a l'électrification, il y a l'électricité partout. Nous avons la ville, l'une des villes les plus propres et les plus éclairées kon, du Sénégal. kon su ma la déggee mooy Ngaye amul benn village bi nga xam ne tey lampe bi du tax. bari na ci village yi tàq. non ngaay amul village benn dëkk la. waaw benn dëkk bi lamp mën naa lamp mën naa lakk. waaye dëkk ba leer na naañ amul fu tàkkut. kon bu puso uh, waddee. boobu de woon ñu for ko waxuma la puso sax puso sax mën naa briller parce que parce que parce que day weex. mais mais leneen bu waddee ñu for ko pépp dugub. Mhm. bu dee ñu forko dëkk bi leer na lamp nag mën na griller. Mhm. loolu mais ndox mi. Partout, il y a l'eau. Et on est en train d'augmenter pour que les lotissements, pour l'extension de la commune, on est en train, au moment où je vous parle, de faire une extension du réseau d'eau. Et on a euh, des prévisions encore pour en augmenter davantage. Il y a le CEDAF, on est en train de travailler. Mm -hmm. Nous, on travaille. xaaroo leen état xaaroo non on attend l'état à la mission régalienne. su mhm. li ñu defoon euh, feccum liir bu neexee. Mhm. dafa am ku téye ci mbagg yi état mooy téye ci mbagg yi c' l' état qui c'est l'État qui donne, c'est l'État qui alloue les ressources, mhm. c'est l'État qui contrôle et c'est l'État qui est qui est le gendarme également. Mhm. donc mënuñu wax ni xaaruñu état bi waaye bari nañu ay partenaires privés des partenaires extérieur des qui nous accompagnent et avec l'État bien sûr parce que partenaire mënta ñëw accompagner la bu ci état bi àndul donc état bi mi ngi def li man président Macky Sall. Mhm. il faut le dire mi ngi def li man mi ngi ñuy jàppale bu baax a baax a baax a baax il faut le dire c'est le président il croit il croit en l'artisanat il croit au développement il, il croit à la croissance mm. mais nan ko jàppale parfois je j'ai l'impression qu'il est seul aussi il faut ñu jàppale ko parce que jàppale mooy lan jàppale mooy président moi j'ai travaillé avec trois ou quatre présidents de la Banque africaine de développement président bu waxul li mu wax sax bu xoolee rek nga da war a xool li mu xool moom lan la nga matérialiser un un un quand balaa lay jox directive non non ajibu ko sax bu xoolee baa mu wax rek discours am rek boo pare rek nga dóor ñun loolu lan loolu lan ñu jàngal Euh, euh, le développement passera nécessairement par euh, la création d'emplois aujourd'hui il y a beaucoup de jeune qui ne pas boo ko gisee xale yi ñu naan jubluwuñu ko léeg-léeg dañ mais ñun liggéeyuñu defuñu dara mais li fi nekk ci xale yu am diplôme te liggéeyuñu dafa bari mais état bi itam mënut a xëy jox ñëpp liggéey mais xale yi tamit il faut ñu comprendre ni waruñu xaar liggéey ci état bi nécessairement mais suñu leen créé lewul les condition ak les mécanismes yi nga xam moo mën a tax ñu créer seen affaire u mais en ce mi ngi mel ni kon dafa lu leen dara et loolu itam dañ ci war a gën a góorgóorlu e président gëm na loolu et dañ ko ca war a jàppale et gëm na ko e mi ngi ciy liggéey def na kéemu kartam infrastructure yi mu def des infrastructure de dernière génération <laughs> mais bala ñu ko mën a apprécier muy dans cinq ans dix ans am na yoo xam ni apprécier nañ ko heureusement te matagul deux mois <laughs> comme terre bi mais je prends l'exemple quand le président Félix Houphouët-Boigny bi muy defar cathédrale bi ñu naan mais des euh, il investit ay milliards au milieu du désert au milieu de la savane de Yamoussoukro mu defar tëli ñu ni yàq la tey lan la la mu prévoir woon sax pour entretenir cathédrale bi si je ne bi c'est des centaines de milliards kenn amatul jotu utiliser ko parce que nit ñi mi ngi indi tourisme donc boo demee France monument yu ñuy visité yëpp ban koy def on les avait taxés de de création folle aujourd'hui il faut que Sénégal gëm ni mmh nous suivons la marche du monde le Sénégal marche au rythme du monde. Okay. Et que le président a enclenché la marche qui sied au rythme du monde donc dañ ci war a jàpp gëm suñu bopp. et li gën a difficile nag ci développement. Mhm. c'est les mentalités. moom la anglais di wax mindset. changement de mentalité. parce que boo changé mentalité mënoo changer comportement. doo dem quoi et il faut mhm. ñu gëm suñu réew. Mhm. il faut ñu gën a taxaw. il faut que ñu ànd nekk benn. nguur gi yolomal ñi yor ñi exécuter le pouvoir. am humilité et modestie ça manque souvent nag aussi parfois il faut qu'on soit beaucoup plus humble <laughs> gars yi humble dafa mel ni <laughs> non waxuma ne humble dama ni ça manque souvent en tout cas ñi nga xam ne am na nañu conscience ni humble war na nañoo gën a humble parce que on ne que pour le peuple et par le peuple mhm. donc il faut faudrait que nit ñi ñu gën leen a jige gën leen a comprendre gën mhm. leen di déglu même li ñuy wax su fekkente ni du noonu mais nga déglu ko wax ko li nga xam ne mooy noonu bu fekkee nangu la déglu nga naxante rek ba mu dégg. boo yoree doole doo ko doo ko jariñoo itam dóore. il faut que aussi ñuy bàyyi il faut parfois qu'on lâche du lest. loolu mooy mooy mooy mooy mooy vivre ensemble. Okay. donc vivre ensemble. Mhm. et et et, et la grandeur. c'est d'accepter l'autre tel qu'il est et non pas tel que je voudrais qu'il soit et donc euh, nan leen naxante mhm. réew mi ñoo ko bokk coow yi fi am ku nekk di xëccoo waa loolu pour lan la pour defar réew mi benn xale dafa ma ne woon ci élection yi waa euh, boolu sos de bu desee tuuti ay ponkal di joxante ay kurfaj mooy ay yuuxi yàpp nga ca biir <laughs> alors que la gouvernance exige que yuuxi yàpp yooyu kenn waru ko lekk bàyyi ko yuuxi yàpp yooyu c'est pour le peuple et on doit pour le peuple mm-hmm. et au service du peuple donc il faudrait wara lu ñu jara xoolaat la ca ngaay dinañ ñëw wàcc ba Dakar gis nga faat yi nga xam ni yaa koy dégg fu nekk mankum sécurité bi itam yitteel nañu bari de. waaw euh, sécurité bi maa ngi wax liggéey Sénégal mi ngi dox. mais am na yu doxul itam nu xool ji doxul ñu arrangé ko. parce que la la pauvreté extrême aussi existe. mi ngi fi dans certains endroits. am na ñoo xam mënu ndékkee du nu añ. donc yooyu itam. dañu war di ko saytu. est-ce que joxe quatre-vingt mille francs moom mooy régler loolu. man dina leen dimbali bu baax ndàmpaay la. dina leen tàmp bu baax. mais du regle problème yëpp. Mhm. di régler problème yëpp. mais yaakaar ni koo jox ay xaalis euh, depuis 2012 ba tey war na mën a jéng génn ci pauvreté ngay ñëw di ko jox. non non non xaalis génnewul nit ci pauvreté. Hmm. xaalis génnewul nit ci pauvreté ñun on vit au milieu de la pauvreté parce que ñun ñi nekk ci àll bi ñun ñoo xam nit ku sonn mel mais boo ko gisee yow boo jógee Ndakaaru boo ñëwee doo ko xam parce que dina sol mbubb mu rafet ree moo gën a neex sa ree moo lay ëpp jàmm te nga defee nag am na dara donc loolu dina leen damp hmm. dampaay dafa baax nag ci yaram wu mu metti hmm. waaye nag du ko faj garab bi koy faj la ñuy wuti donc loolu am na lu des lu bari et il faudrait que président gën ci taxawaat pour mu gën a dox man mi wax ni man président la nekkal je suis avec lui je suis la politique je suis APR je Benno Bokk Yaakaar mais nag dañ koo war a aussi wax li nga xam ni ñun moom la ñu dund ci suñu gox yi pour que ñu mën cee jàpp ñu passé ndàmpaay faj nit ñi donc ñu liggéey ci waaw donc loolu c'est sécurité waaw c'est au niveau international gis nga dëkk bu am koom am insécurité léegi nag nan la ñuy saytoo ba réduire moi je fais confiance à nos forces de de de défense à de sécurité à notre police parce que gars yi li ñuy def nii dara ni tëll la matin ngoon nga ni jàpp gars yi ba avant midi jàmbaar lañu donc nañ leen renforcer dans les moyens mais la meilleure police c'est comme ça se passe en Europe boo demee ay France ou Allemagne ou autre mais police yi màggat yi toog ci balcon yooyu mais ñoo gën a efficace pour la police parce qu'il faut police c'est de du renseignement c'est de l'intelligence comme les anglais disent intelligence su fekkee nit ki amul information amul renseignement mënta def sécurité donc population yi ñoo war di jox police sécurité ñoo war di assurer seen sécurité. Mhm. boo demee ci yenn réew yi nga xam ne ñun fa lañ nekkoon que ça soit la Tunisie ou Côte d'Ivoire ou mais day am ay barrières c'est les jeunes qui font les barrières dans les quartiers bu ngoonee ñu attaaye et il font la ronde et am defar fermer quartier yi. boo duggee ñoo xam foo dugg foo jëm buñ la séenee ñu interpeller la donc la sécurité commence par les populations d'abord mhm. la sécurité commence donc par leur action et par leur renseignement et maintenant boo demee fu mel ni Ngaye ñun am nañu gendarmerie c'est bien mais Ngaye fi mu ne trente mille habitants l'économie le boom économique de la cité ah, exige qu'on ait une police waaw waaw il faut une police mhm. mais il y a cinq ans que je cours derrière je demande une police mhm. j'étais dans sur la liste onzième place di dem a dem ba nekk ay quatrième place parce que dafa am ay ay ay ordre de mhm. d'affectation mais aujourd'hui il faut que nous mette cette police là mais man moi je n'ai pas pour décréter que ngaay day li ma man mooy di bind mooy di topp mooy di saytu mooy di wax ak ministre yi mooy di wax ak euh, euh, autorités yi pour que ñu mën ko am mhm. et loolu fépp la Sénégal bon dañ naan bon mënuñu yóbbu police mais léegi comme xale yi bari nañu il euh, les ASP, il y Mais qu'on qu augmente les polices et on fait des recrutements à outrance pour avoir ces polices-là. On a réglé solution. Ah, ensuite, Bi. ensuite mm il faut une régularisation des mouvements sans contraindre la liberté de mouvement. Alors je m'explique très bien. Mm mooy que war nañoo xam ku ñëw fanaan ci jàkka baa mu dëkk yi nga xam ne ñoom la ñu roy léeg-léeg kenn ci fanaan ci jàkk mais war nañ ko mën a fanaan mais au moins <laughs> nga dem ci imam bi ak délégué de quartier bi ñu xam ne yow kat yaay diw tel nga ñëw tel tel tel <laughs> bu nit di circulé ci koñ xamoo ko yow nga dajeek moom nit ki kat maa ngi koy gis ci koñ bi waaye xaw ma ko ñun de ngaay noonu la def na ngeen dem informer délégué de quartier bi délégué de quartier bi woo la on a fait sortir des gens sécurité mais ça ne suffit pas <laughs> et le boom économique de la ville la ville la le point stratégique de la ville la mine de zircon qui a ses bureaux euh, euh, dans la ville ça fait que beaucoup de gens viennent en espérant avoir euh, quelque chose parce que fi mine yi am à travers l'Afrique mm. dafay am une exploitation traditionnelle mm-hmm. donc ñoom dañuy xamuñu zircon dañuy dégg la mine de zircon dañuy defe ne boo ñëwee mën nga gas am zircon et ils sont là donc je pense la gendarmerie fait un effort extraordinaire. Ah. son son ñoo ngi liggéey liggéey bu rëy. Mhm. et aujourd'hui grâce à eux nous assurons la sécurité quand le Covid est là ils sont là. Mm -hmm. quand l'insécurité est là ils sont quand il y même des problèmes qui sont. des problèmes. Mhm. Euh, qui qui qui qui ne sont véritablement pas des problèmes de sécurité mais ay xuloo sax léeg-léeg dañ ci dugg donc. Mhm. ils sont débordés. ils ont besoin d'assistance. ok ñu jeexalee kook li nga xam ne moo jëm ci wàllum politique. APR nga bokk wax nga ko Benno Bokk Yaakaar. ñu ngi dem ci ay élections législatives euh, pëccëxoo bi bari na liste baaxul Yewwi liste baaxul benn Bokk Yaakaar maanaam dafa mel ni ñoom rek ñoom ñoo nekk ci joŋante gi ñeneen ñi xanaa ñoom bokkuñu si ñoo xam nga liste baax baaxul xam nga kooku mooy yàpp d'abord sa réew yàpp sa bopp ñoom ñëpp waaw parce que euh, li am maanaam mooy dafa am pouvoir judiciaire mhm. ñoom am na organ yoo xam ni ñooy saytu lool mais nañ leen bàyyi ñu saytu ko. ñu appliquer loi bi kon nga bëgg a wax. bu ñu demee ko saytu appliquer seen loi. Mhm. parce que li ñuy wax ci bari itam du dëgg y a de la désinformation. mais dégg naa ñu naan Modou Fatoumata la tudd ak Aminata mais man màggat laa tudd màggat mën na nekk turu jigéen donc yooyu nanu bàyyi nit ñi ñu xool. xool këyit yi xool leeralal ñu mais du ci ay télé ki ay rajo. conseil constitutionnel moo mun a. waaw mbir mi yow. wóolu nga am na am na ay organes man wóolu <laughs> naa sama réew. je fais confiance à la justice de mon pays je fais confiance. à la police et à la gendarmerie de mon pays. Mhm. je fais confiance à mon président. Mhm. je fais confiance aux la force du Sénégal. c'est c'est la solidité de ces institutions. mais tey dañoo bëgg a bazarder li nga xam ne mooy suñu doole sur le plan mondial mooy suñu solidité ay institutions. il faut que. am nañu ko mais waruñu ko fragiliser. même boo yow sacrifié wu. Mhm. même si on, on devait sacrifier quelque chose ou quelqu'un pour préserver la solidité d'une nation c'est ça le patriotisme et le nationalisme mais euh, critiquer injurier xeex euh, fragiliser les institutions ce n'est pas un acte patriotique et ce Sénégal-là mm c'est un Sénégal qui a un aura international réew la moo xam ne respecté nañ ko et am na réew la moo xam ne déglu nañ ko réew la moo xam ne am na ay cadre mais loolu li ñu ko waral mooy sur la solidité de nos institutions mhm. donc moi je fais confiance maintenant fi ñu jëm c'est des élections moi je suis de la coalition Benno Bokk Yaakaar candidat nga à la candidature j'ai candidat à la candidature mais ku nu mën di jël rek ma jàppale ko comme ni ma waroon jàppale sama amoo benn problème mm, non non non mais ku ci am problème mais ça veut dire que ce n'est plus une discipline de parti d'abord ce n'est plus soutenir le président Macky Sall attention on nous sommes dans un régime républicain nous sommes dans un régime républicain et parlement bi mais soo jàppalewul président nu muy gouverner comment l'exécutif va va s'exercer mais ñee nee nañ cohabitation lañ bëgg mais c'est normal c'est le rôle le rôle de l'opposition mmh. c'est de gagner d'avoir la majorité parlementaire et d'empêcher au président de gouverner et loolu sax c'est pas démocratique ah bon ah mën nga ko empêcher. Mhm. non on ne doit pas à un président de gouverner. Mhm. il faut on peut imposer sa force pour lui imposer la cohabitation dans la gouvernance mais empêcher de gouverner c'est pas patriotique c'est pas nationaliste. dëkk bi du dem sax. mais yow doo dem maam sëñ Abdou Aziz Sy Alamine danaan wax ni. Mhm. soo nekkee ci gaal gi bul ñaan gaal gi suux non bul ñaan ñaan sa ëmb rëcc. mu ne yow kay xalaatal gaal gi rek mhm. ndax sa ëmb bi li koy li koy muccal mooy gaal gi mucc mais boo nekkee ci gaal gi naan na gaal gi suux yow sa ëmb yi fu ñu donc moi je pense que mhm. euh, nanu dal tuuti chaque chose mhm. raison il faut savoir raison garder ñu xool bàyyi ñi war a liggéey ku nekk liggéey ba nu indi nag décision ku nekk mën a pëccax pëccaxu moi je suis coalition bi ku mu jël rek ma jàppale ko su ma jëlee ma dem liggéey suñu ma jëlul ma dem jàpp et ça doit être le comportement mm -hmm. républicain ñi nu ñi ñi xëccoo ñëpp ku nekk am nga ambition quand on est en politique c'est pour euh, gouverner c'est pour avancer c'est pour c'est pour euh, exercer un pouvoir au bénéfice des populations au bénéfice du peuple mm et au service de la nation loolu moo tax ñu dem politique man de loolu tax may politique. waaw yéen déjà seen parti liste bi génnul ku nekk a ngi xaar. c'est pas ce qui est important y ñii ñu ngi naan euh, bu ñu man de bu ñu ma tànnul damay boycotter vote sanction et de suite. non moi je pense yéen a ngi sax préparer ay lettres pour mun ko jox seen militants yi frustrés. non je pense je je pense xam nga man sama point de vue nga ma laaj. man du ma ñëpp ñëpp du man. Mhm. xam nga man sama point de vue rek laa mën a joxe. man li may wax sama camarade yi mooy. Euh, kenn gënul kenn pour jiitu kenn dàqute jàng kenn kenn ëpplewul kenn kenn gënul juddu kenn te ku ci nekk fa nga nekk yàlla la fa teg parce que yàlla mooy tànn parce que aussi soit ñu nekk ay jullit soit ñu nekk ay mécréant su fekkee ay croyant lañu que ça soit chrétien ou musulman yàlla mooy tànn mhm. su fekkee ay mécréant lañu aussi ay mécréant lañu mais defe naan Sénégal ñi ci ëpp gëm nañu yàlla am yonent kon loolu am na mais aussi liggéey am na il faut nga compétent aussi il faut avoir la compétence avoir l'expérience mmh. et le le le le, le sens de l'altruisme et du service mmh. de la nation loolu am na maintenant li ci des comme kenn mooy décider léegi mhm. ngeen kenn benn président de la république da fi am ñett amu fi ku ci réy làmmiñ itam ku ciy waxat ku jigee ku mu xam ak yëpp yow suq dong nga mhm. benn président rek moom wax ji moom day bari mais xam nga il faut raay raayal bi dafa bari ci réew mi <laughs> il faut ñuy wax mbir ni mu demee benn président rek fi moo tax léegi léeg li doxul itam bu doxul ba doxul am na ci responsabilité. moom njiit moom njiit mi. Mhm. waaw parce que bu doxee ba dox moom moom moom lépp li doxul am na ci responsabilité kon moo war a tax mu war a wax nit ñi. Mhm. ñuy doxal mais di leen surveiller ñuy doxal. Mhm. et di leen exiger ñuy doxal ba mu dindi leen. Euh, li ñu cërale woon ci waxtu daanaka jeex na waxtaan bi am na solo lool waaye ñun Magatte Wade ñu daal ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax baax ci waxtaan bi ñu bàyyi la rek nga tàggatoo tàggatoo bu dul jeex fii. waa di wax ni daal hmm. euh, Sénégal euh, réew mu neex la. Hmm. réew moo xam ni. te kenn ñu war ñu ko yaakaar. waaw ñoo ngi ak sunu sëriñ yi ñoo ngi leen di sant bu baax. Hmm. parce que gis nañ rôle li ñuy joué. opposition bi itam ñoo ngi leen di saluer di leen wax ni. ñoo li ñuy def itam c'est leur rôle. Hmm. mais rôle itam dafa am ay normes nguur gee itam ñoo ngi ci seen role mais rôle nguur itam dafa am norme parce que opposition lu mu opposé opposé nguur gi ñoo leen di gérer. tigi da nga li wax de. tigi lu mu opposé opposé nguur gi lu ku fi rëy rëy opposant premier opposant patron de l'opposition sa président mooy président Macky donc soo ko fragiliser rek. Hmm. fragiliser nga sa nation. te li nu gën ñun ñëpp. mooy la nation moo nu boole parce que moo tax notre vivre ensemble et Sénégal moo nekk au-dessus de nous tous kon war nañ di bàyyi xel sunu réew di bàyyi xel ki nu ko jox mhm. di bàyyi xel nu bopp di bàyyi xel ñu topp suñu ginnaaw mais ñu topp suñu ginnaaw nag mhm. muy nguur geeg ñu nekk suñu ñun ñëpp war nañ leen gën a bàyyi xel ñoo gën a bari ñooy sonn ñoo nëppi coono te ñoom la ñuy bëgg a xëcc ñu génn ci liñ ne kon loolu itam il faut ñu leen di bàyyi xel bu baax kon maa ngi sant maa ngi leen sant bu baax euh, Dramé di sant euh, seen rajo bi di fi sant aussi le promoteur euh, Magny di wax ni lii rek mooy réew il faut que information yi man di tas nit ñi di ko wax mais nag ñu bàyyi aussi xam ni Sénégal ay ay ay lu mat juróom te fukk ak juróom benn million yi nit lanu kenn ku ci nekk. am na ñu bari ñu la gën. ñoo xam ne gisoo leen déggoo leen. tigi ñàkkul ñoo gën nag. Mhm. waaye ñi ku ci nekk. Mhm. ñi la gën ñoo la ñoo ëpp ci réew mi. am na solo ñi la ñi la loolu nit ñi dañ ci war di bàyyi xel. Mhm. il faut que ñuy am beaucoup plus d'humilité. de recul et de la modestie. que ça soit dans l'opposition que ça soit ceux qui gouvernent. et ku nekk yolomal ñu ànd doxal suñu réew. et réew mi avancé. te ñun ñëpp ko bokk ñun ñëpp ko bokk maa ngi leen di san mhm. maa ngi leen di gërëm. Mhm. waa ngaa yi ngi leen di nuyu. jërëjëf tabaski nag incha allah. buñ mhm. ci yàlla yóbbu jàmm ak feneen. ah libéralisme am na man. def naa lu man ñaar fukki at ci institution financière internationale. donc xam naa la la libre concurrence. waaye nag sañ naa itam. parce que libre choix dafa am libre choix mooy bu may jënd li ma neex laay jënd. waaye jëndal leen nag li jóge ngaa yéen itam. am na solo <laughs> jërë ngeen jëf. loolu am na solo di ko sant di ko gërëm moom Magatte wàdd nekk rek euh, maire bu ngay Léopold Mendy moom moo nekkoon ci xarale gi ñu jox leen dig dajee beneen dimanche ak beneen invité ak euh, fii ci rajo Rewmi FM. ak sa gox liggéey liggéey liggéey dox ak sa gox jógal dox ak sa gox waaw démocratie bu jar njëgëm dañuy fexeel lu ñu ko aare xit xool saytu doon message bi ñuy tasaare dootu ñu fal rekk fàtte dafay laaj ngeen rendre compte saytu li ñu leen dénk suñuy dërëm fan lay xëya a marre, a marre, a marre, a I'm out.